waa Pape Cheikh comme euh, ni nga ko annoncé ci suba euh, bi ñu nuyoo. annoncé nañ ni dañuy defar li nga xamante ni mooy caakri waaye nag caakri bu ànd ak ay fruits secs wax naa la ko sànq boo demee Makkatal Mukarram fekk fa fruits secs yi boo demee yeneen dëkk yu mel ni dëkku Maghreb yi tamit euh, barina fa loolu mu nekk ay fruits yoo xamante ni léeg dañuy jaawale parce que fruits yoo xamante ni ci ay xoox la ñuy nekk lu ko mel ni ay gerte wala ay amande am yeneen fruits yoo xamante ni dañ leen déshydraté maanaam dañ leen wowal lu ci mel ni yii ñu andi tey muy raisin sec li xamante ni mooy tàndarma figue ak apricot sec nga xamante ni ñoom ay fruits yu tooy la ñu woon mais dañ leen jël woowal leen bu ñu leen wowalee Euh, daal di ciy def nag li nga xamante ni mooy euh, euh, maanaam bu ñu bu ñu leen woowalee dañuy perte li nga xamante ni mooy ndox yi nga xamante ni moom mooy yàq fruit yi donc ñoom li li tax ñu koy mën a conserver lu toll ci un jàpp dem ba ay 18 mooy que amatuñu benn ndox moo tax suñ ko dencee denc bi dafay yàgg mais ba tey du ñu génn ci catégorie fruit ak légumes yi nga xamante ni fruit minéraux yi ñu soxla suñu yaram ñoom ñoo ñu koy jox donc abricot sec yi nga xamante ni ñoom ñoo am couleur bu jaune bi raisin léeg-léeg ñu gis ko sunu ay vermicelle wala sunu ay couscous li nga xamante ni mooy tàndarma nga xam ne moom lañuy ñuy dogee ak li nga xamante ni moom mooy figg moom la ñuy jël daal koy def sunu caakri defoon nañ fi caakri boo xamante ni fruit yi la ñuy jël def ko mais bii dañuy jël fruit sec yi euh, daal di koy def ci si li nga xamante ni moom mooy sunu caakri loolu nag su su ci amee dañu war a wàññi li nga xamante ni mooy suukar bi ñuy def ci biir euh, caakri bi donc ñëw nañu nag ci suba jël li nga xamante ni mooy sunu meewu sofia parce que chaque jour dañ koy wax am na beurre am na meew donc nga jël meew bi nag xóoyal daal di defar sa soow soo ko fanaanalee boo yeewoo da ngay am sa soow maanaam da ngay jël euh, meew bi tàngal ndox daal di ko ciy def bu ko defee nga jënd soow wala yaawur def ko ci parce que ferment yooyu nga xamante ni moom mooy nekk ci beneen soow bi moo lay permettre soo yeewoo soow bi mën a far ba jox la li nga xam meew bi mën a far ba jox la li nga xamante ni moom mooy soow ñun nag taamu nañu fi yeewu leen suñuy defar suñu ay jàkkari def ci crème fraîche parce que chaque jour dama lay wax ni acidité bi nga xamante ni moom la soow bi di am crème fraîche bi dafay ñëw ñëw dagg ko euh, carrément donc dañuy jël crème fraîche bi laata ñuy euh, tàmbali suukar yeeg essence vanille yi ba di ci def li nga xamante ni moom mooy fruits secs yi euh, daal di jël crème fraîche bi def ko ci yëngal nag bu ñu yëngalee jël fouet bi pour doon yëpp mën a tas nga xamante ni da ngay am sow bu liis moo tax ñu tàmm ci fouet bi mais tamit kudd sax baax na pour mën a defar li nga xamante ni moom mooy càkkri bi jël nañu nag li nga xamante tamit moom mooy lait concentré moom tamit dinañ ko ci def parce que euh, du ñuy bëgg di ci def euh, li nga xamante ni moom mooy ndox donc mais lait bi daf ñuy permettre tamit ñu mën ko diluer sans pour autant ñu am ay caakiri yoo xam ne dafay dang ba doo ko mën a lekk donc ñu yëngalaat euh, suukar bi wax naa ko léegi dañ koy wàññi non seulement pour ñi nga xamante ni ay diabétique lañu sunu parent yi nga xamante ni dañu diabétique ñoom xam naa bu ñuy reprendre caakiri bi duñ ci def li nga xamante ni moom mooy fruits yi waaw parce que fruits secs yi tamit c'est hyper riche en calories ba pare dafa saf suukar donc euh, mën nañu def soow bi def crème fraîche bi. am koy ñu wàññi suukar bi euh, wàññi li nga xamante ni moom mooy fruits secs naam bu fekkente ni dañuy wàññi seen suukar mën nañu dindi yenn ci seen euh, seen seen lekkin muy ceeb beeg mburu bi mën nañ ko dindi pour mën a consommer li nga xamante ni moom mooy caakiri yi parce que tam jàppal ni Mado su fekkee da nga jël sa ceebu jën lekk daal di jël sa mburu ndékki bu bu caakiri bi ñëwee ngoon si sa toolu de sucre suukar mën na yee donc su fekkee nag dindi nga mburu bi daal di dindi ceeb bi mën nga nag dem ci caakiri bi bu baax baax a baax donc leneen li nga xamante ni itam euh, dina ci dem muy euh, caakiri bi nga xamante ni moom it tey nañ ko ci suba jël suñu beurre sofia ci bi muy tàng parce que tamit loolu lu jara euh, préciser la dañu bàyyi ba nga xamante ni teggi nañu suñu inde ci xal bi ci taal bi daal di jël nag beurre sofia bi def ko ci lan la ñuy permettre mooy que dañuy am ay caakiri yoo xamante ni gis nga ni ñu ko amee ni grain yëpp dafay tàqali ko loolu beurre sofia rek moo la koy may donc nga gis ni caakiri bi day dem ba wesang parce que brillance bi nga xamante ni moom mooy moom la beurre bi di andi euh, daf ciy feeñ carrément def nañ ci noix de muscade daal ciy def li nga xamante ni moom mooy fleur d'oranger donc leneen li nga xamante ni moom moo ciy des mooy essence bi moom it dinañ ci ñëw sànni ci tuuti essence vanille essence muscade ak essence coco. donc ñetti essence yoo xamante ni dañ ko dañ ko jaxase def ko ci li nga xamante ni moom mooy càkkiri bi mën nañ ci dolli ko ko ràppee dolli ci yeneen bagage yoo xamante ni dama ko dindi parce que tey dama bëgg accenté wu accentué wu ci li nga xamante ni moom mooy fruit sec yi donc laataa fruit yi di ñëw nag dañuy tibb suñu càkkiri def ci biir donc ku fekkee euh, da ngay bëgg càkkiri boo xamante ni soow bi du bëri dangay bëgg soow bu soow bu tuuti ak càkkiri bu bëri soxlawul ñu ciy def lu bëri sinon vice versa boo xamante ne soow bi da ngay gis da ngay bëgg mu dominer li nga xamante ni moom mooy càkkiri bi donc mu nekk nag ñun fii sunu ay euh, reer yoo xamante ne dañ koy taamulee dimanche léeg-léeg sax ñu ne la dessert la parce que dafa xaw a saf sukkar xam naa ne professeur moom duñ ko jox càkkiri bi kese mu reere ko mais léeg nag mën nga def sa lu woyof euh, dimanche euh, ma doon lu ci mel ni ay omelette ah genre lekk yooyu nga xamante ni diisu benn yoon soo paree nag teg ci sa kopp caakri au fruit nga xamante ni gars yu bëri nee nañu dessert la ñoom du ñuy bëgg di ko lekk ñu moom kase donc ñu ñëw nag moment bi nga xamante ni moom mooy euh, jeex jeexindal bi def ci li nga xamante ni moom mooy fruit sec yi wax naa ko léegi raisin tàndarma figue ak abrico sec donc mi ngoog day changer sunu ay guwu caakri parce que léeg-léeg ñu jël caakri def def ci sunu ay pomme def ci banaana sànni ci coco râpé mais bi yoon dañuy am beneen gou boo xamante ni sooy lekk da ngay sentir ni yaa ngi ci yaa ngi ci tàndarma bi léeg-léeg nga daj ci abrico léeg-léeg nga daj ci raisin bi léeg-léeg nga daj ci figue bi donc loolu yëpp ay xeetu neex-neex la yoo xamante ni pour mën a am alimentation bu variée la rek ak goût yoo xamante ni dafay changer donc mi ngook Euh, càkkiri au fruit sec boo xamante ni beurre sofia lañ ci àndal dañ koy bàyyi na li mu sedd daal di gos parce que tamit suñ ci defee càkkiri bi dañuy bëgg bàyyi ko mu sekki pour mu bañ a sekki ci biir yi comme ni koy waxee dañ koy bàyyi na la ci frigo bi mu sedd tuuti laataa ñu koy def suñu gobelet yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser pour mën ko euh, déguster donc Pape Diallo Diéry moom xam naa saladier bi lay yóbbu parce que Diallo la sant di ko may ñi sant Diallo ñëpp xamante ni ñoom bu ñuy lekk du ñu jël benn benn pot mais plutôt dañuy jël li nga xamante ni mooy saladier bi yëpp donc mi ngoog janti ah madame Diallo amoon ah madame Diallo mooy woote bu madame Diallo wootee ne la monsieur Diallo dafa soxla <laughs> bu madame Diallo wootee nga yónnee ko kaas mu ne la kaas bi dafa tuuti moom bool bi la bëgg maanaam bool bi nga xamante ni moom lay gis quantité bi <laughs> moo koy gënal qualité <laughs> del wax rek donc euh, ñu bàyyi la nga àggali ay waawaa dama koy sedd léegi Pape xeeli la ci kopp heureusement ba caakiri gaaw naa defar waaw gaaw na defar moo tax mu mu nekk sunu ay sunu sunu sunu ñamu cosaan boo ko defaree fee fee maison nag ci nga lépp jeex na comme niñ ko defee merci beaucoup Alfie ñu ngi ñëwaat ak yow